bu dee duel moniteur buñ ko waxee bu ñu ci jublu nga utiliser ndoo ñaari écran exemple ñaari écran di ko liggéeyandoo comme ni ko gisee ci photo bii nii xam ne man léegi-léegi ma nga utiliser lu ëpp ñaari écran walla ñaari écran rek pour nga mën a def loolu li si jiitu dangay ngay xool sa graphique adapté bi wala carte graphique ba xam euh, am nay doole wala dëppoo na ak mu mën a utiliser lu tolloog ñaari écran fu man naa nekk man ngaa branché ñaari écran yi def Windows P bu dee si Windows nga nekk boo defee Windows P dina indil tableau bu mel nii si wet gi boo xam ne dinaa la ndax danga soxla euh, benn écran bi feeñ beneen bi du feeñ wala mu nekk duplicate lii feeñ ci bii mooy feeñ ci beneen bi wala mu nekk extend tey boole ñaari écran yi mu nekk mu mel ne benn écran la wala second screen only rek beneen bi mooy feeñ waaye beneen bi du feeñ comme safaanu bu bi ci kaw moom euh, dual monitors wala nga utiliser loolu mel na ñaari écran comme ni ko waxee léegi ngay xool ba xam graphique bi carte graphique bi ba xam euh, man am na doole utiliser ndoo ko bu dee am na doole utiliser ndoo ko baax na bu dee amu ko te machine bi nga mën cee dolli beneen graphique boo xamante ne dina la mën a may nga mën ko utiliser mën ngaa dolli beneen am ñaari graphique pour euh, mën ko dolli kon da soxla woo lu mel ne de display port moo xam VGA la DVI wala HDMI yi nga xamante ni yëpp gisoon nañ ko ak yeneen xeet yi xam ne dalay may nga mën a afficher dara euh, awee ko ci benn kaabul boo xam ne da koy jàllale ci écran bi comme ni ko gisee fii comme boo xoolee photo bi ñaari yi ni mel. mën naa nekk ñu mën naa nekk yeneen comme HDMI comme euh, ni nga ko gisee woon léeg-léeg tamit mën ngaa soxla euh, display interface mooy boo xamante ne comme display port wala Thunderbolt boo xam ne dalay may nga mën a lënkale ay écran euh, yu bëri lu ëpp ñaar pour mu gën a leer mën ngaa seetaan vidéo bi 4 bi la xaw ma 5 minutes leer na naa ñi dina la wan pour nga gën comprendre boo branché écran yi ci unité centrale bi exemple ñaar yëpp bu dee Windows da def Windows P Windows P bouton Windows boo bësee bouton Windows P euh, dina la indil tableau bii nii nga tànn benn façon nga ko bëggee ajo liñ jëm si wàllu Euh, yi nga xam ne input la wala output te mu jëm si wàllu microphone wala appeleur bu dee microphone mooy lan moom moo ñuy may ñu mën a def ay enregistrement euh, li ñu wax ñu enregistré ko mu dugg ci biir machine bi bu dee speakers moo ñuy may ñu génnewaat ko ñu mën koo dégluwaat di ko dégg ak suñu nopp bu dee headphones comme casque casque ko day liggéey comme liggéeyu speakers bu dee headset moom day boole diggante microphone ak. headphones tey di mën a enregistrer di mën a génn son tamit comme ni nga gisee photo bi ci kaw nii di carte son la boo xoolee wet gi comme ni leen fekk suñu unité centrale yi wala ci machine euh, machine portable yi tamit ni nga koy fekkee waaye bu dee standard sound card mooy carte son standard bi nga xam ne moom la topp lii lañ si war a fekk dañu see fekk bi nga xam ne day yor couleur rose pink bi nga xam ne day yor couleur bleu bi nga xam ne ak bi nga xam ne day yor vert bi nga xam ne day yor ñuul ak orange di gën a xam nag mooy euh, bii di enregistré ak bii di génne son muy pink beeg euh, ak ana line green bi pink mooy analogue microphone la dañuy may ñu mën a enregistré li ñu wax euh, mu dugg ci biir ordinateur bi bu dee analogue tamit bu dee light blue bi tamit bu yoru blue bi tamit dañuy may ñu mën a enregistré waaye ci beneen xeet boo xamante ne bokkut ak comme pink bi daraja bi muy enregistré bokkut ak bi nga xamante ne moom la Pink di enregistré bu dee Lime Green moom dañuy may ñu génne euh, son mën ko déglu bu dee euh, Black Analog tamit dañuy may ñu génne son si surround speakers yi bu dee Orange moom it dañuy may ñu mën a génne son si centre canal speakers xam naa bàyyi dina gën a leer ci euh, speakers lu mel ne surround ak yooyu noonu bu dee jàkk yi ba léegi comme ni ko waxee comme yéen ay microphone in in mooy input out mooy output concret yi nii ñu gis nii am na tamit leneen lu ñuy wax SPDF euh, muy Sony Philips Digital Interface mu nekk euh, benn méthode boo xam ne dañ koy utiliser ngir mën jàllale ay son euh, moo xam ci lu jëm si machine yi léeg-léegi wala nga xam fi ëpp fu ñu koy fekk mooy li mel ne ci li ñuy digloo son yu lecteur vidéo DVD yi lecteur CD boo xoolee comme genre forme yi lay jël comme genre jaag yi nii xam ne dañuy may ñu mën a euh, am benn euh, son boo xamante ne day nekk si signal euh, digital muy Sony Philips digital interface mën naa am jaag boo xamante ne day nekk coax am connecteur RCA connecteur wala mu nekk fibre optique am benn connecteur boo ci bind dina leen wan euh, nan lay mel boo xoolee photo bi Google bu dee speaker speaker mooy mm, buñ ko waxee comme ni niñ ko waxee woon comme genre apple rek am nan euh, li ñu wax stéréo stéréo buñ ko waxee mooy day mel ne euh, benn haut-parleur ñu comme ñaari haut-parleur ñu boole ko ci benn benn bi nekk ci côté gos bi benn bi nekk ci côté droite bi loolu la wax comme stéréo bu dee surround sound bu ñu ko waxee surround sound mooy euh, son bi day euh, da nga koy yëg daal day da koy indi ci format boo xamante ne day nekk lu réaliste bu dee lu jëm si wàllu euh, speaker ba pare surround sound am nañ ci ñaari façon mën naa nekk cinq point un mën naa nekk sept point un cinq point un digital system wala ñu koy ñu koy wax dool bi digital wala digital series system comme ni ñu waxee woon stéréo bi ne mën naa am benn boo xam ne si gauche bi la benn droite mu mel ne dafa nekk ñaar ci ñett bi day utiliser bu dee cinq 5.1 day utiliser lu ëpp euh, day toll lu toll ak 5 canal yoo xam ne pour génne son comme boo xoolee photo bi ni mu mel nii. boo xoolee photo bi nii comme mu mel nga xool son bi day génne côté bi côté bi côté bi côté bi côté bi comme euh, lii la la ñuy wax xam te ne bu dee 5 point 1 da nga fekk fekk 3 ci kanam yoo xamante ne benn bi centre lay nekk benn bi gauche benn bi droite ak de yoo xam ne réew la réew bu ñu koy waxee mën nañ ko woowee loo xam ne day ëpp utiliser lu ëpp 4 canal pour mën a euh, génn son pour di génn son pour mu gën a euh, nekk son bu gën a neex. boo xam ne deux la boo xam ne day nekk si gauche bi ak bu nekk si droite bi ba pare am beneen boo xam ne pour si woowu la pour lu jëm si wàllu basse son bi bu dee 7 point un mm, système ñu koy wax Dolby Digital Plus wala HD euh, comme ni nga ko gisee ni day am tamit extra side speakers am yeneen yoo xamante ne si wàllu speakers yeneen canal yoo xamante ne da dool dooleeku yaakaar naa Euh, pour parametre lu jëm si côté yooyu noonu son bi wala kii bi boo demee si Windows bi comme son bi fi nga koy gisee nii man ngaa def clic droit ci kawam karna da ngay am hmm, préféré de lecture boo ñëwee fii nga gis lecture boo ñëwee lecture di nga lecture boo amoon lu ëpp benn euh, baaful pour bëgg mu lire ci xam man bu ma nee xam naa lii mu lire si baabul bi si la nekk nii muy wax ci kaw bu ma nee xam naa ko def headphones mu su ma indee son si casque day wax bu amaatoon tamit beneen baaful wala lu mel ne beneen loo xam ne day génne son fii la koy affiché da ngay def clic droit ci kawam rek mën ngaa def désactiver mën ngaa def tester mën ngaa dem propriété comme expliqué la nekk ni nga gis ne affiché les préférés nga xam ne dafa désactivé wu mën ngaa def nii boo ko defee nii yooyu duñ ko des bii duñ ko désactivé moo tax boo bëggee mu affiché la lépp mën ngaa ko sa lépp mën ngaa def configurer les ëpp parleurs pour mën kaa configurer mën ngaa def test mën ngaa dem propriété pour lu jëm si wàllu kii bi mën ngaa ñëw niveau yokk ko mën ngaa dem euh, lu jëm si wàllu base beeg virtual surround beeg gis nga ko boo tànnoon virtuose round wala nga tànn bass boot ngay xool ni son bi dina indee dina ko defee beneen format dina am tuuti wuute moo xam ci xumbaay la wala ci gën a tuuti wala déet ñëwee si enregistrement mooy yiy enregistré mën nga ñëw fii def clic droite tànn bi nga bëgg a tànn bu doon dafa fekk yeneen lu bëri mën nga da ngay def clic droite rek daal koy ajouter comme par défaut boo demee propriété mën nga faa fekk gis nga fii nii ni mel couleur bi mu doon wax pink mu ne la 3.5 mm mu ne ca euh, mën ngaa dem propriété pour pilote son bi li jëm si wàllu pilote yi comme ni nga ko waxee woon ngaa dem écouter boo defee écouter sa préféré après daataan euh, speaker mën ngaa digluwaat sa bopp li ngay wax muy. Euh, loo wax rek automatique mm, da ngay dégluwaat sa bopp daal pour écouter waat sa bopp day mel ni sa bopp ngay enregistré muy wax automatique niveau yokk microphone bi bu gën a xumb wala déet statistique comme am nga fii daal lecture pour yi nga xam te ne ñooy jëm si wàllu baafu léegi yooyu mën ngaa tànn ba nga bëgg mu lire nii pilote yi nga ñi nga xam ne ñooy def wàllu enregistré bu gën doon benn microphone enregistré boo xam ne si machine bi mën nga koo régler ci fii peut-être koo bëgg tànn par défaut ndax boo ko tànn par défaut bu enregistré peut-être micro bi nekk ci machine bi wala say casque mooy enregistré wu am nga son boo bëggee tànn son yi fii boo bëggee agrandir comme boo bëggee réyal mu indi benn son boo bëggee wa boo bëggee wàcc mu indi benn son communication kon daal euh, li am solo mooy foofu boo bëggee tànn Euh, man ngaa dem préféré de lecture yu jëm si wàllu lecture ak yu jëm si wàllu enregistrement bu dee webcam webcam moom mën nañ ne benn digital sensor la boo xamante ne dañ koy liggéeyaale ci machine yi léeg-léegi mën na euh, mën koo liggéey loo xam ne da ci mën a enregistré moom microphone bi comme ni ñu ci liggéey euh, microphone yi si ëpp day jël vingt cinq VPS FPS mooy frame par seconde frame yi nga xam ne moom lay kii par seconde mën nga am tamit soixante FPS moom lay nekk built-in mën mën naa nekk built-in mën naa nekk externe built-in mooy bi ci ci liggéeyaale externe mooy boo xamante ne yaa ci monté wala yaa ko jënd comme loolu mooy webcam dalay mën a may nga enregistré mën nga benn photo wala nga def benn vidéo